salaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi seetaan seen télévision Argo TV ak seen mbokk seen xarit oustaz Alhaji Malick Ngom ci seen émission verset di jour tey ñu ñëwaat ak yéen ci beneen verset yàlla di wax ba tey ak doomu aadama yi di wax ba tey ak jullit yi yàlla nee na allazina hum yuraun wa yamnaun almaun mu ne mbugal mbugal ñeel na ñi nga xam ni dañuy ngistal xam nga ngistal jaamu yàlla yépp ngistal daf cee mën a dugg koor rek koor rek lañu wax ni nit ki mën na ko def ki koy def moom mën na ko def te ngistal du ci dugg waaye nit mën na di julli ji julli juróom ngir ñu ne ko dafa ñeme jàkk rekk bëgg nit ñi adressel ko loolu tax mu di ko def nit ki mën na di saraxe pour bëgg nit ñi ne kii dafa baax rek nit ki mën na di dem màkk pour bëgg ñu ne ko allaaji wala ajaratu mooy ñi nga xam ni foo leen fekk dañuy ngistal bari na léegi nit ñi dafa mel ni defatuñu te yàlla tax même buñ la waree may sax bu caméra yi tàkkul duñ la may la waa ji waxoon ne man duma may muuma maanaam du ma may muuma mooy du ma may koo xamante ne si du wax koo xam ni su ma ko mayee tamit danaan mig noppi ki may may mooy koo xam ni su ma ko mayee dina génn ci biti yëgal ñépp ni may naa ko kooku kay est-ce que yàlla moo taxoon muy joxe kon koo xamante ne si yow tant que caméra yi tàkkul doo maye sa mbokk dafay feebar sës ci yow rëkk doo ko faj ordonnance su cinq mille francs wala ordonnance su deux mille francs mënoo ko ko jëndal waaye tey xëy na dee dëj bi taxaw mbokk yëpp taxaw ñëpp ñëw nga dem yeew ak ab nag xam nga ni sa nag boobu nga dem jindi ji defuloo ko ngir yàlla ngista la tax nga di ko def parce que da nga koo bëgg a def pour famille bi yëpp xam ne yow yaa jënd nag bi tey jullit nag yàlla nee na ñi nga xam ni foo leen fekk dañuy ngis ngistal balaa ñuy mën a maye caméra yi tàkk balaa ñuy mën a def lu baax mbooloo teew am ñoo xam ne sax boo leen fekkee ci seen biir kër ñaan leen duñ la may mais boo leen fekkee ci mbooloo rek tagg leen yëkkati leen rek ñu may la ngir mbooloo mi lañuy bëgg visibilité la ñu soxla yàlla nee na ñoom ñëpp mbugal ñeel na leen dinaa wéet ak ñoom mosal leen ba ñu yëg ni mosal naa leen allazina hum yuraun waaye yemu ci wa yamnauna al maun wa yamnauna al maun nag mooy koo xam ne dafa aay boo ñëwee àbb ko fourchette sax mun la déedéet aw ma denc nañ ko bu ñuy àbb ko bool mu bañ loo ko àbb ci matériel mu gàntal la nit da yaatu nit dangay yaatu di yaatal ndax li fi nekk di matériel àdduna kase la lépp dañ ko fi bàyyi kon nag mbugal ñeel na ñi nga xamante ne si dañuy ngistal ak ñi nga xam ne dañoo aay allazinahum yuraun wa yamnaun al maun asalaamualeykum wa rahmatullah